barkeb Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te gën a wér Serigne Béthio sunu yaakaari teeg ëllëg yàlla na fi yàgg lool te gën a wér ci barkeb Serigne Saliou jëmmam ji nu miin noo ngi ñaan ci barkeb Serigne Saliou mu yàgg fi lool gën fee yàgg lool te gën a wér. mbokk julli di mbokk taalibe yi maa ngi leen di nuyuwaat bu baax te di leen siyaare fépp fu waay nekk dina fa digloo ak fu mën a doon rek ñoo ngi lay nuyu noo ngi santaat sëriñ bi bu baax ci ndimbal ak tawféex gii mënu defalaat ba nu fekkee te jotaay bii nga xam ni jotaayub sant ko la ndax ci lañ koy waxtaanee ndax waxtaan wi nu koy waxtaanee ak cant la dafa bokk ci sant ko ndax ak cant ñaari taxawaay la cant gi ngay jëf ak cant gi ngay wax di wax màggug sëriñ bi di waxi xéewalam di wax yërmandeem loolu daa bokk ci sant ko moo tax sëriñ Tuubaa boole na ñaar yépp muy jëf ji ak wax ji yeeyee le ko ko moom yàlla mi nga xam ne suñu ko waxee moom lañu wax làkka sukkuru wa tahmiidu yaa xayra maaliki xalaa man la lahoo sax bun xalaw kulla saaliki kon asukuru moy cantuk jëf waaye attaxamidu moy cantuk wax li nuy def na dafa bok ci xeeti cant yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sax neena sante yalla ci wax ko ki sa kaddu dis na ci yalla disay bop balance yi sax mënu ko alhamdulillahi yam la kulli misanin kon jotaay bi nu koy dilusit dellu nañ ci non ko ci sant di jotaay yim ndigal itam ndax waxtaan wi nuy waxtaane serigne bi da wessu rek ab xam-xam donte mi ngi ci waaye daa bokk ci sunub taalibe ndax du ku bëgg a wax a toog di wax du ñu bëgg diglu rek ñoo toog di diglu kun bëgg mu waxal leen sëriñ bee joxe ndigalul ñu di ko def ñu koy diglu it ci ndigal lañ koy digloo kon loolu daa tàbbiwaat ci ak taalibe kon noo ngi santaat sëriñ Saliou mi nu dimbali ba ñu fiy teew di ko sant di dundal sunub taalibe yàlla na fi yàgg lool tànd ku wér kon nu dellu siwaat rek ci waxtaan wii nga xam ni moom lañu ñu fiy amal saa su di ko waxtaanee moom sëriñ Touba. sëriñ saaliwu ay jëfam ay waxam ndax kat xolamaa uyi danu ne laa yadullu ala shaxsi illaa bi qawlihi wa amalihi jëmm amul lu ko gën a tegtale lu gën a tegtale li mu doon ay waxam ak i jëfam kon kenn ku nekk say wax ak say jëf mooy wane li nga doon ndax li nga doon li ñu ci mën a tegtal ñu mën caa xam mooy li nga wax ak li nga jëf lañuy peese mu jox nu poids sa jëmm moo tax Serigne Touba Serigne Saliou mii nuy waxtaane saa su nekk ay waxam ay jëfam moom rek la ñuy waxtaane loolu nag di feeñal ak màggam tey nu tànnaat nag janeen wax ci wax yi nga xam ni waxante na ko ak sëriñ Béthio te wax ju ca nekk feeñalul lu dul boppam mu wax ji mu ne ko woon kenn ëppatu la daraja fa yàlla kenn ëppatu la daraja fa yàlla nga xam ne jooju wax sax am na sabab ndax Serigne Saliou day defe ni sunu borom. yalla sa yu beugé feeñal mbir da koy sabab motax day jaar ci sabab feeñal donte sabab sa nekul ne mo feeñal mbir ma waaye mooy don jumtu jumtukaay bi mi jaar feeñal lam mu bëgg motax mu jangal ni ke suratul kahf ne wa aataynaahu min kulli shay'in sababan fattabaha sababan hatta Isa balakha maghriba samsi wajadaha taqrubu fi haynin hamia, wa wajada hindaha saa su nekk day jaar ci sabab ngir feeñal waxaat ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam itam ci suurtu suuraa ni ko yàlla day du wax ak benn mbindeef du ko déy mbiram mukk du feeñal ci moom mbiram mukk lu dul ne da koo jaarale ci ay sabab lu mel ni wax yu baa lu mel ni kiiraay loo xam ni day da koy jaarale ci ginnaaw kiiraay la lay làqu ngir wane la mu bëgg a wane baa mu jaar ci ndawam wane la mu bëgg a wane loolu sabab lay jàngale وما كان لبصر أن يكلمه الله إلا وهيا نو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوهي بإسنه ما يشاء إنه علي حكيم وحنا كويت ولا ياتونك بمثل إلا جهناك بالحق وأحسن تفسيرا يوي آي يب من كوي وخني ساي بغي فينال يفهم داكوي جارالي كي سبب موي بريتاكس بيمي جار غي كو سيرين سالو ييتام بيمي وخ سيرين بيتو وخ جي امنا سبب Eh, jaar ci itam du wàññi dara ngir fàttali taarix bi la rek ngir jublu nag waxtaan ci ndax xam nga ni daa ñëw siyaare si ko moom Serigne Béthio bi mu dikkee itam fekk Serigne wu toog mu daldi di nuyoo su jóot comme ni nga xam ni ab taalibe noonu lay nuyoo ab sëriñam ba mu gestoo itam gis na ko eh, njort na ni ku ko fekk fu ni mel war na koo mën a su jóotal mu mel ni daa wëlbatiku su ko sëriñ bi tàng tàngam googa nag jur mu ni na ñëpp jug dem ba ñëpp jugee dem ba ci moom ba muy bëgg toog ca guyaab ga nga xam ni ku xam ko sëriñ saaliwu xam ko ca la sëriñ bi wooloo saaliwu jaxate mii ñëpp xam ak moom ne ko wool ma sin becco mais ba mu dikkee nag ca la ko wax ni ko yow ndekete koo gis di nërëm nërëmee ak yu mel noonu xamagoo sa bopp ba tey mu ne ko mbàkke man dama ci xam dara mu ne ko xanaa xamoo ni kenn ëppute la dara dafa yàlla mu ne ko mbàkke tuub naa ko damaa xamul ci sama bopp dara kon du xissa boobu nag wax ji laa bëgg a waxtaane bi mooy kenn ëppatu la daraja fa yàlla baat boobu mooy doon suñu tem tem bi itam ñett tomb lañ koy tërale ñett ñett bu njëkk bi mooy lan mooy daraja ci jëm boppam baatub daraja mooy lan su nu xamee baatub daraja mooy lan ba noppi ñaareel bi mooy ki nga xam ni moom daraja moom mii xam na kenn ku ne la nga ca am ca yàlla ba mën a xam ku ca ëpple kookee mooy kan ñaareel bi mooy ki nga xam ni daraja moom yi nga xam ne mooy tomb bu njëkk bi buñ ko xamee mooy lan ba ki xam ku ne la nga ca am na mu toll ak nan ko ëpplantee ak ku nekk na nga ca wuuteeg sa morom ba mën a xam ku ca ëpple ba mën koo wax kookaay kan waaye ñetteel bi nag mooy kookee nag kamu ne yow moom kenn ëpptu la daraja fa yàlla kooka itam mooy kan kon ñetti tomb yi rek moy doon ñu waxtaan bi ñu ñu di ci jàngee nak maggu serigne saliw rek ci yërmandeem ak mbaaxam yalla doon jar ta kon ñu ñëk ñew ci batum lan moy daraja daraja xam nga batum arab la bo xam ni ñëw na ci alcorane lu bari boko doon firi ci olaf mom da nan daraja rek waye batum daraja joju olaf di wax arab la darajatun darajat. daraja nag mooy firi wàccuwaay almanzila di firi martaba maanaam maqaama ak yëkkatiku tolluwaay mboolem mbindeef yépp kenn ku ci nekk la nga wuut ak sa moroom loolaa leen wutale baat bi boo ko doon firi coolaf kon wàccuwaay martaba maqaama kenn ku ci nekk la nga ci am moo tudd daraja ci yow mbaat bi kon loolu lay firi kon ci istixlaa bi léegi nag boobu baat nag alxuraan da koo séddale nag ñeenti xaaj ndax waxtaan wi ñetti buum rek a koy yeew mooy buumuk alxuraan muy aaye suñu borom yi ak buumuk sunna muy addis ak buumuk taalibe muy waxi sëriñ tubaa lépp luñ fi wax lu nekk du génn ñett yi alxuraan addis waxi sëriñ bi ndax lo loolu lay fi laaj yaa ngi dégg bu ko defee jëmmi baatub daraja nag ni ko alxuraan jàngalee da ko séddale ñeenti xaaj benn bu njëkk bi mooy bi nga xam ni taxul kenn gën kenn taxul kenn ëpp kenn taxul kenn yées kenn maanaam kenn du ci ëpplante ci yàlla ak faneen booba responsabilité rek la mooy bu njëkk bi waaye yeneen ñaar yi benn bi yeneen ñaar yëpp yàllaa koy joxe waaye benn bi da koy jaarale ci ay jëf maanaam ci ay jëf la koy natte di ko defalaate moom daraja jooju mooy ñaareel bi bu ñetteel bi nag mooy bi nga xam ne it yàllaa koy joxe waaye tëru ko ci ay jëf ci coobareem la koy defee bu ñeenteel bi nag ñëwaat na ci alxuraan boobu mooy bi nga xam ni jëf mayewu ko coobare yàlla mayewu ko mbindeef du ko am daa jomm ci moom yàlla rek ko jagoo diglu leen baax daraja laa ni ñeenti fànn la ko alxuraan def bi nga xam ni gënante amu ci responsabilité la mission la fonction la yeneen ñetti yi yàllaa koy jox ku ko soob ci la ñuy gënantee ñaari bokk ñetti yi ci des ñaari yàllaa koy jox ku ko soob nag ku dul yàlla mënu ko joxe waaye ci la nit ñi rawantee ci la ñuy gënantee benn bi nag da koo tër ci ay jëf maanaam ci jëf lay jaar di ko defale beneen bi nag tëru ko ci jëf ci coobareem lay jaar di ko defal ko ko neex beneen bi nag moom jëf ma yëwu ko coobare ma yëwu ko jomb na mbindeef am ko yàlla rek a ko jagoo jagoo gépp ko jagoo moo ko may sax mu mën a xam ku ne dara ja nga am ak na ko amee kacara wa kacara wut loola conclusion bi dana la gën a wan kon li Serigne Saliou wax ma njëkk ñëw ci bi nga xam ne fonction la rek boobu alxuraan andi na ko mooy jëkkër ak jabar wala soxna ak borom kër borom sunu borom nee na jox na ko daraja ci kaw soxnaam baatub daraja jooju nag alxuraan andi na ko muy baat bi waaye max naa mi li muy firi mooy ci fonction responsabilité mu féete kaw wala hunna mislu lasi alayhinna bil mahrufi wali rijaali alayhinna darajatun wallahu xasiisun hakim ke suuratu baqara baatub daraja leen di foofu lu mu wax jël naa góor ñi def leen ci kaw jigéen ñi ci wàllu takkante góor ñi yor daraja ja féete kaw jigéen ñi mooy lan jëkkër mooy doon kilifa ga foofa boo ko defee jigéen gi muy soxna si moom lay tàggu moom ku góor du tàggoo day yëgle rek yaa ngi moom moo yor dundal moo yor wodd soxna si du dem fenn te tàgguwu ko lu bëgg a defee da cay diisoog moom nga xam ne sa olof danaan sa jëkkër sa sang la bu ko defee ci moom ngay jaamu loo xam ne day barkeel sa njaboot loolu alxuraan tërale foofu muy ar rijaalu قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم مولم مفسرون يب بني فيري ولي رجال عليهن درجه اي بوب لنجو فيري دان ني موي ريسبونسابيلتي غور تي جيجين مانام بروم كير نيم يليفه كير جي nga xamne moy don kilifa kër gi mo yor baat bi mom lañuy taggu mom lañuy diisol lim bëggay am te mom kenn ku ne da lay yëgal rek waaye lam lam lam jàpp rek décision yi ci loo xam la nekk foofu dara jëtun la alquran jëfandikoo waaye daraja jooju nag taxul boroom kër gi gën jigéen gi ku jigéen ki ku jigéen ki mën na ko ëpp sax daraja fa yàlla ku góor ki mën na ko ëpp daraja yàlla mën nañ ko tolloo mën na noo rawante kon foofa rawante gi du kursu loola fonction rek la mooy première bi kon kon boobu jeex na alxuraan kon andi na ko ma ngi ko suutu baqara kon léegi kon mu des lan ñett yi ki des ñett yi ki des nag ki la gënantee maa ngi ci baatub luy daraja ba noppi ko defee ndax Serigne Sall dana ko kenn ëpptu la daraja fa yàlla kon war na noo xam luy daraja léegi nag yenn ñett yi nag ñaari ci la nit ñi rawantee ci la ñuy gënantee waaye bu njëkk bi yàllaay joxe ñaar yëpp bu njëkk bi nag da koo tër ci ay jëf day jox gi ci jëf sottil la ca daraja joj daraja joojee ku ko amul ni yow moom nga koy gën ci yàlla loolu nag ñëw na ci alxuraan lu bari soo demee ci suuratul An'aam suñu borom saxal na ni am na daraja yu ngeen ni jëlee ci seeni i jëf walikulin darajaatum mimma hamilu darajaatun mimma hamilu waaye sàdd gi danga koy jàngale walikulin darajaatum mimma hamilu wama rabbuka bi xaafilin xamma yamaluun yéen ñépp seeni daraja maa ngi koy natt ki seeni jëf am na ñoo xam ne foofu lan yem ba defee ne daraja yi ci jëf la natto déedéet benn xaaj la ci rek loolu dama bëgg nu xam ko loolu benn xaaj la ci rek am na xaaju daraja yooyu ci jëf yi lañ koy natte suñ borom ni man nag nu ma ki seen jëf lu ngeen jëf xam naa ko xam nam toll xam na ngeen ko jëfee xam jublu nga xam yéen jëf mu toll waxi sëriñ Saliou ja jëf ju ne xam naa na mu toll xam la nu cay fay te dama jaawale jëfi kenn ak moromam ku ku xamewut noonu jëf yi mënta natt daraja yi ci jëf yi ndax bu fekkee ne jëf yi yow daa am lu la ci réer ba ci yéen ja boo bëggee natt daraja ci jëf doo mën a atte kon faaw dara dana ci bañ a réer nga ko mën a atte muy benn ñëwaat na it ci suut Ahqaaf wa li kullin darajaatum mimma hamilu walinuwaffiyahum ahmaluhum wa hum la yuslamun kenn ku ne ci yeen ñu ngi koy natal ay daraja darajatun moy ben daraja muy singulier darajatun moy ay daraja muy pluriel muy jamhu bi dañ ko tegg jamu taksir muni ni ngi leen koy natale ci seen i jëf daane seen jëf yi nag dara reeruma ci motax man mi koy nat duma jox kenn lu upp duma jox kenn lu yees fofu kon alquran dafa wane ni dana nat daraja yi ci jëf kon lolu defi la bi mu ko wanee foofu itam war na yeneen aaya ci biir téere bi yoo xam ni daf nuy nittali ñoo xam ni nattal na leen nag xam nga na ngeen xam ni am na daraja yu may natt ci jëf déclaration la mu déclaré ko ay yoon waaye ginnaaw déclaration bi itam moom suñ borom am na ñu mu na ñii nattal naa leen ci ci seen i jëf ci seen i daraja jëf sàngam ak jëf sàngam ca laa jóge defal leen darajee sàngam ginnaaw déclaration bi am na aaya yu ñëw andi nag confirmation bari na nag waaye dama ci indi yenn rek bi bi may mooy da ngay dem ci suuratu Lanfaal fekk suñu borom am ñu muy wax daraja yu mu leen jox waaye nee na ci seen jëf la ko natte ñooñooy ñan yàlla ni allazina isaa sukkira allahu wajjilat qulubuhum wa isaa tuliyat alayhimu ayatuhu saadathum imaanan wa ala rabbihim yatawakkaluun allazina yuqiimuuna salaata wa yuutuuna sakkaata wa saq mimmaa razaqnaahum yunfiquun ulayka humul a haqqan moo tax itam lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim ay gaa yi ngi suñu borom ay wax ñoo xam ni fu ñu tuddee yàlla seen xol yëg ko ba nux nuxi xam nga loolu jëf la jëfi xol la muy benn fu ñu jàngi alxuraan baa ne yëkkati turu yàlla baa xasaayit seen xol yëgaat ko nux nuxi seen ngëm dolli ko loolu jëf la jëfi xol la waaye yemunu ca dañoo doyloo seen borom ci lépp ba wakkil ko seen mbir kon loolu jëf la muy doyloo yàlla yemunu ca waaye ñoo ñi sax ci taxawal julli kon loolu jëf la te di ko defee na ma ko bëggee ma nangu ko yemunu ca waaye ñoo sax ci jël seen wërsëg bi ma leen wërsëgalee di ko dépassé coono yàlla ma nangu ko loolu jëf la ba tey nga jëf ko ci wërsëg daan yii gaay daal na ngeen xam ne ñuy dëgg dëgg ñi gëm moo tax itam man yàlla dogal naa leen ay daraja yu rëy fi man te sukkandikoo ko ci seen jëf yi ma leen limal jéggal naa leen wërsëg wu tedd am nañ ko ci man ñooñu kon lu alxuraan wax ay jëf la tudd ba noppi daane sukkandikoo naa ci daggal leen ay daraja fii ci man yàlla kon yenn gaaya ngoom yu yàlla wane ni jox na leen ay daraja seen jëf la ko sukkandiku mooy mooy mooy benn ñëwaat na ci alxuraan lu bari demal ko suuratul Hadiid fekk suñu borom it waxaat ay gaay yu muy nettali daraja yu rëy yu am waaye nee na mi ngi ko ngi leen ko nattale ci seen i jëf وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من ننفق من قبل الفتح وقاتل لم كتك أولئك أحسن درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وهذا الله الحسنى والله ما تعملون قبير دانا وات أي غاي نجي يو خمني داي لما لين وسغال تي alal ñu dundale ko ci yoonu yàlla gis naa ñom day xam nañ ni kaw suuf ak li fi nek lepp yalla ko mom ta ci loxom lay mujj motax ñu bëgg lu dem yobali seen jëf neena na yooya gaa yi ndax danañ yem nga xam ni ñom lama leen wërsegal ci seen bop lañ ko yamalé duñ ci la ci yoonu yalla nax yam nañu ñu ne ko boo doon da nga naan déedéet yalla mune motax itam ño ëpp daraja nga ko deful kon gis nga fofa nattal na leen jañ ñu man ñurul ñom ñoom leen mane ci seen jëf alcorane la ba tey niki noonu itam dégg suñu borom bi mi wax ci gaa nga xamni ño non dem ci tori xare yi ndax yonente bi na xare xare da metti da nga bayyi sa kër bayyi sa njabot joxe sa alal ba noppi fasiyene Nada faatu ndax da ngay jël sa jaasi bo joxe sa alal bayyi sa njabot ak yépp nga xam boy dem sax da ngay far miira sa bop joxe say ndénkaan na woor la ba xam da nga ñëwaat tam déet loolu xam nga jaayante deug ak nafiq baña nek ci yow mooy tax nga man ko ndax joxe sa bakkan di yefi jaxan moo tax tuba Tuubaa tagg wa والكل منهم سجها يبقي اللقاء يسرها له بماه القمم وقاتلوا من قدها هم وسفيه السفها حتى القبال ستها بين جبال المكم نوني غاني جامانو جوجو نك امنا ньо خامني سينو دغال ويرتون نافق لا نيك تي بير جوليت ني نيو ني دان تافانتلو سما باجي نما يوني اك سما سون دا توت دما خي خي خيال بن بوي ميتيك يوني ميل غير لان باجا ديم ak ñëw naan di teg daal ay ay ay pexe ki pala ngir xam ne ni yëfi du yëfi jaaxaan moo tax suñu borom nag daal dikk daan ni ñi nangoo dem jaayante te yàlla rek tax ak rasulullahi ñooñu de li ngeen xam ni ñoo féete kaw dara daraja fuuf ña nangu wut a dem du ma yemale mukk man yàlla gaa ñi nga xam ne jaayante na na bàyyi seen alal joxe ko bàyyi seenu njaboot bàyyi seen bop fasiyene de ànd ak rasulullah tama tax ak ñi nga xamne dañoo tegi panaa démaru tama xam ko xam nga ne man yàlla dama yemale seen daraja daraja ñe mo upp daraja ñi wa kon fu ko sukkandi ku ca jëf ja la yastawi qahiduna min al almuminina surtout nisa khayra uli darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddala allah al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqaahidina lu mu ko teg darajatan wa kullan waxada al husna وفضل الله المجاهدين على القاهدين اجرا حسما درجات مفيرليا منه مغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما كون فوفو نتاتنا اي درجه نيم كو جوخ نيو فيتا كو نينن فوم كو تك تاي جيف ولكل درجات مما حملوا لن يالله يجوخ اي كونفيرماسيون تاي غاي غيس غاي تام صحابه يي سن بوروم تاغات نالين كسوره التوبه جوخ لين درجه جو خامني كي لن واخاني كين فيتيتول كو ba wax ni kenn dootu leen dab ci lislaam waaye foofu lu ñu wax kenn dootu leen dab ci daraja ci wàllu jëf bu fekkee daraja yi jëf di maye jëf nañ ci foofu jëfe ko foofu kenn dootul jëf jëf ju la may daraja jooja ndax fan jëfe ak nan ko jëfe kon deesu leen dabati ci daraja ci wàllu jëf nag ndax dama laa wax ne la daraja ay xeet la daraja ji jëf di joxe daa bokkut ak ci coobare yàlla joxe moo tax bi leen yàlla daggal daraja jooju nga xam ni moo leen may seen fuuritu fas bu bun bu bun yëgee fas ba gémmiñ nga fuur fuurit ma man wàll yu ba gën a rëy wala téeméeri wàll yu gën a rëy wala junni wàllu yu gën a rëy daraja jooju leen jox loolu ki seeni jëf la ko yàlla sukkandiku moo tax ku jëfewut fan jëfe woon jëfe woon nan jëfe woon dootoo leen dab ci daraja jooju ci wàllu jëf waaye mënees na leen romb nag bu ma ñëwee ci ñaareelu xaaj bi mooy ci daraja ci wàllu coobare loolu it bi ko alxuraan di saxal li may wax lépp nag ci alxuraan laa génne ak àddisa waxi seen bi ndax réew mu foofu la toll yaa ngi léegi boo demee ci alxuraan dani allazina amanu wa haajaru wa jaahadu suratu tawba bi amwalihim wa anfusihimu ahsamu darajatan hindallah wa ulaika humul faisuun yubassiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha nahimun muqim daane gaañaa ngoog gaaña gëm yàlla gëm gu wér ndax maa leen defal ngëm kon xam naa bu wéree gu wérul ñu ne ko waaw mu ne tag ca gàddaay génn seeni kër ànd ak yonent bi dem Madinatu Munawwara ñàkk seen alal ñàkk seeni i soxna bàyyi seen lépp tama jaral leen ko ñu ne ko waaw mu ne yemul ca waaye ñu jaxaat ci yoonu yàlla di ca ñu leen fay faat nga xam ni dañoo boole xaataloo ak xuttiloo fa lasina haajaru wa uxrijoo min diyarihim wa usoo fi sabili wa xaataloo wa xuttiloo la ukaffiranna anhum sayyi'atihim ila axiril aaya kon jaxaat yoonu yàlla muy ñett jëf kon ngëm gi yàlla leen ko defal seere na ko waaye gàddaay gi jëf la mooy génn def ay effort dem jihaat gi jëf la nett wax naa ko léegi jihaat yi ci aju ba jihaat am lépp ay jëfi neen la alal ak sa bakkan ci yoon yàlla yàlla ne bi am waalihim seen alali dépassé nañ ko ci yàlla loolu yu jëf la waan fu ci yim jaay nañ seen bakkan ci yàlla loolu yu jëf la su ne moo tax itam ahsanu darajatan aka noo màgg daraja hindallah fii fi man yàlla kon ci seen i jëf la sukkandiku daggal leen yooyu daraja daane texe nanu daan ne nag moo tax itam bégale naa leen ci sama yërmande sama ngërëm na lu ñuy dëkk foofu nag boo gisee mu teqale daa bëgg a wane ni àjjana nag moom ak ngërëmul yàlla jëf du ko maye sama coobaree rek ak sama yërmande moo tax bi mu waxee li leen jëf may ci daraja dafa tëj aaya bi tijji neen aaya nag sësale ko daane léegi nag yubassiruhum rabbuhum bi rahmatin min wa ridwanin moo tax sëñ Saliou mën na ko jël lu yàlla tamit ndax loolu lu leer la yaa ngi dégg te dinaaj ñëw léegi kon yooyu kon yi aaya ma jot a yëpp ay aaya la yuy tegtale lan ne am na ay daraja yooyu jëf lañ koy natte ci sa jëf la yàlla yi sukkandiku defal la daraja ja bu ko defee nag ku jëfeetul fa nga jëfe woon baa jëfewul na nga jëfe woon bu dee ci wàllu daraja yi jëf di joxe du la ci mën a dab mënoon naa ci indi yeneeni aaya ak yeneeni aaya ak yeneeni addis waaye yooyu argument doy na ci wàllu daraja yi jëf di joxe yooyu ci alxuraan wax léegi kon ma tëj boobu ñaareelu tomb bi kon mooy kon lu ñëw ci daraja yi nga xam ni moom jëf du ko joxe kenn mënta jëfa jëfa jëf ba am ko kenn du wax ba am ko kenn du dox ci maqaama ba am ko yooyu yàllaa koy joxe ci coobareem rek yooyu nag yàlla mën na koo jox ku deful dara man koo jox ku def lu ne weng man koo jox ku yamambaay ku ko neex la koy jox foofu coobareem la fay doxe jooju daraja nag moo gën a foor gën a rëy daraja ju njëkk ji nga xam ne jëf a koy natt donte kenn ku ne sa jëf tolluwute sa jëf yi morom moo tax ñu naa ko ne sa jëf sa morom waaye nag dañuy juum ku ne sa daraja sa jëf lay nattoo buñ ko waxate yam ca neel genn ci daraja yi jëf lay nattoo ay am na beneen xaaj alxuraan ñëw na ci nag léegi nu ñëw nag ci deuxième bi deuxième bi nag moo ëpp doole foofu première bi mooy li yàlla def ci coobareem ndax boobu day nattoo nattu yàlla bi te bii day nattoo nattu mbindeef ndax sa jëf lan natte kon yow mbindeef ci sa àndaar lan natte bii nag yàllaay natt ci coobareem kon ci àndaaram lay natte te xam nga ni àndaaru ko yàlla eh bokkut ak àndaaru mbindeef kon booboo man boobu mu daal di ñëw foofu su mborom saxal na ko fa bari ci alxuraan suratul anham su mborom dane wa tilka hujjatuna aataynaha ibrahima ala qawmihi narfahu darajatin waaye man nashaa'u foofu man nashaa'u moo ñëw inna rabbaka hakimun halim yónnent bi na nga yëg ni yàlla sa borom rek ka yor lay wi ci mboolem yónnentam yi mu yónni ci kanamu mbindéef yi yàlla moomu nag moo leen bëgg a yëgal ni yor na ay daraja yooyu moo koy jox ku ko soob foofu nag mën na saawu la man na saawu ku ko soob foofu amul jëf amul ñàkk jëf ci coobareem la ciy doxee mooy deuxième bi boobu suut arham saxal na ko waaye yemut ci lan rek ndax daa ñëw ci alxuraan fu bari demal suurtu yuusuf سن برام داني فبدا باوهيتهم قبل وهاي اقيه ثم استخرجها من وهاي اقيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اقاه في دين الملك إلى أن يشاء الله لم تك نرفه درجات من نشاء إن ربك حكيم حليم ولا فوق كل فيه من عليم سن برام داني دي نتل ميري يوسف باي دانيل دال دي ني نيك نك يورنا في نك ay mangi siinu daraja yooyu jëf du ko maye maqaama du ko maye maa ciy ñaagal ku ma soob lu ma soob maa ciy ñaagal ku ma soob lu ma soob daan moo tax itam lu waay rëy rëy rëy am na ku la féete kaw ku la féete kaw mooy kan ka ma ñaagal ca daraja ya lu ëpp la ma la ca ñaagal foofu kon daa saxal ne man na saa waxul mi maa xamiloo ba tey moo tax yëfi yëmu ci mi maa xamiloo rek dégg nga taal xuraan la loolu ñëw na kon ci suurtu suurtu Yuusuf ñëw na fu bari loolu léegi nag léegi nag déclaration déclaration baa ngi noonu nag léegi nag ma ñëw nag ci confirmation bi ndax bi mu déclaré bee daraja yi muy joxe ci jëf daa andi ñum ñum joxañ seen i jëf wax seen i daraja léegi nag déclaré waat na beneen muy darajay coobare mu andi nag ci biir alxuraan ñu ñum joxañ ci loolu ñoo xam da leen jox ay daraja waaye seen du seen coobare du seen i jëf boog coobare suñu borom la gis nga nag bii daraja bii bii xeet مو ديف ولي ولي كي بير ولي مو ديف خطبه خطبه مو مان تي ولي ويا واي مو ديف يوننت يوننت موي نبيو كي بير نبيو مو ديف مرسل مرسل مرسل من نبيو واي مو ديف نيار فك جيرومي نيو كي بي خاج مو ديف يوننت يوننت مو ديف مو ديف لوطات لوطات واي كي بي خاج مو ديف رسول الله فيتكو نييب تي والو ويت بي خاج دال نغا خامني ولي ديفوت لون كو ديفه ولي yàllaa ko defal nar fa nga darajaati man na saw xut bu deful luñ ko defalee xut bu waaye yónent deful luñ ko defee bu yónent waaye ulal xas bi kenn deful luñ la ca boolee rasulullah yi gën ñëpp kenn ku ci nekk ci nguurug yàlla gi maqaama moo ci mën a am lum rëy rëy la la ko may mooy xaaj bi nar fa nga darajaati man na saw maay jox ci sama daraja yii ku ma soob foofu coobare yàlla lay doxee léegi nag foofu boo demee ci biir alxuraan suñu borom tudd na ko fo baree baree baree bari ñoo xam da len di joxagn ci jox gum len jox lolu waye ci ciobarem lako ko demal ca suuratul Isra sun borom tamit unsur kayfa fadalna bahdahum hala bahdin wala lakhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila la tajal maxallahi ilaa naaxara nakhra fatakhuda masmuman maqsula yàlla nee na bi kholal kholal sama mbindeef yi ni nu gënantee nit ñëpp jullit ñee ci gën jullit ñëpp yonent yee ci gën yonent ñëpp mursal yee ci gën mursal yëpp ula xasmee ci gën yow rasulullah doo moroomam kenn sahaaba yi gën ñan gën daan ne ko baa yëg nga ni ngëneel loolu kenn deful loo gëne mu ne ko ahaari bu ko déedéet man mii maa ko def ci sama coobare daan ne te coobare jooju ma doxee ba gën leen fii ci àdduna yow mal xiyam lay raw foofu kenn def fa effort coobare suñu borom la mooy daraja ji mu joxe ci coobareem ni ki noonu itam suñu borom nee na ci biir yonent yi gënante gin gënante bul defe ni Moussa lim gënee Yuusufa Moussa ko def wala Yuusufa daa yaafus déedéet bul defe ni ulul bi juróom yooyu niñ gën ña ca bokkul bul defe ne ñee ñoo yaafus wala ñee jàmbar déedéet suñu borom nee na lu ko def mu ni nar foo darajaati man na saa daraja ji may joxe ci sama coobare alxuraan indiwaat ko tilka rusulu faddal naa بحدهم على بعد منهم من كلم الله لخو ورفح بعضهم درجة وآتينا هي ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن لا يفعل ما يريد نينكو خول اليونتي نينو غننتي 124000 313 gën ca 313 25 yi alxuraan indi gënaat ca 25 ulul xas bi gënaat ci nga man ci ne ko googu nga neel na nga xam ne man yàlla maa jël ñii teg ci kaw ñii ci sama coobare waaye foofa kenn deful dara moo tax war a faaxala wax yàllaa ko def foofu nar foo darajaati man na saa moo séddale foofu moo tax foofu coobare yàlla daraja jooju kenn deful lu lu la yóbbu mu mu mu ñëwaat foofu dégg nga suñ borom it wax faneen moom yàlla ni sul xar si yulqi ruuxa من نمره هلا من يسعو من عباده يوم الطلاقي يبوهم بارز لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك يوم لله الواحد القهار لسم برنبخ الدرجات لهم الدرجات واي صلح اي غاي ني يو درجه تي كوي غاي واي صلح ارس رفيه الدرجات اجي يكتي سين درجه بنتيم نينتيم ني نكا لا موني صلح رسي موي بروم ارس دو سين يكتي du seeni wax sul xarati mooy faahin ji moom la ñuy wax siise ci arab ci ci ci tubaab faahin la ko arab di wax mooy ki jëf-jëf ji suu gi rek suu gi rek mooy faahin ji sax nag ndax ñi jàng grammaire suu gi rek mooy faahin ji waaye day mudaaf alxarati mudaafun ilayhi la ndax jëmmi suu baat la waaye daa bokk ci lisimi juróom li ñu tuddee lisimi juróom ci biir grammaire waaw lay rafaaye alif lay nasabe yaa lay kasra moo tax suu mooy faahin ji gis nga sax boo ko bëggee xam dëgg da ngay ñu turu abu Sar, fi ne abu da bok ci lisimi jurom abu mota bu fekke dafa rafa abu ngay wax abu Sar, fofu waaw ngay indi bu fekke dafa nasab Aba ngay wax aba sar mota nga kun Aba Sarin, tuddul Aba Sar abu Sar la tudd waaye grammaire bi mo soppi fofu baat bi nak kun filu amar la day nebu anta muy fahilam kon bu boba mafoorun bihi lay don muy complément complément na ci grammaire arab day taxaw taxawaayu nasab da bok ci lisimi jurom lisimi jurom du nasab du nasabe maska alaf lay maska lay nasabe te mooy alif gi kon kun aba sarrin boo waxee kun aboo sarr daanu nga waaye nag boo la waxee nu mu tudd bul wax aba sarr neel abo sarr kon fee daa rafaa fii daa nasab waaye boo nee jëlee nañ ci xan abi sarr xan abi sarr bu boobaa booy nettali ne jëlee nañ ci abi sarr xan googu moo ko moo ko la moo ko moo ko kasra dañ koy mas ci suuf bu boobaa suñu too wax abo too wax aba da koy indi ci abi kon fii nag dafa ñëwee suu muy lisimi juróom loolu mbirum grammaire la waaye suñu borom dañuy rafiihu darajaati may aji yëkkati daraja yi fi wala bok aji yëkkati daraja yi fi ñu ne ko ha mu ni al harsi moy borom aras kon fofu yalla yëkkati way kenn dem demal ci suratu jiddaali su borom tag na ay gaay moy ñan ñi mo baxé ñu xam ko dafa ñëk wax ni mbolem nit ñi ñu ne ko waaw mu ñi gëma ci gën daane ñom ñi gëm nak seenu gën daraja jin am muy maqamam gëm mayum ko seen bokk ndax kenn mënta gëm loo sa bopp yàlla rek ka mën a defal ngëm ku ko soob ndax yàlla defaral la ngëm kon ki am ngëm amu ci effort bu mu def yàllaa ko ko roof ña ñàkk moo leen ko roppi kon dooni gëm naa maa ko def déedéet dañ la ko defal moo tax foofu dani ñi gëm ñoo gën ñoo am daraja yi gën ñi gëm ñi gëmut waaye nag seen seen daraja jooju jëfun ko maa ko def waaye ci biir ñi gëm nag ñi ma may nu xam ma ñoo ca gënaat ñoomi ñoom ñaar ñoo ngi nag seen ñaari ngëneel kenn defu ci effort ci narfaxu darajaat mën na saa la bokk ñu ne waxal mu ne yarfahillaahu allazina amanu minkum wallazina utul hilma darajaat wallaahu bi ma taamaluna xabiir suñ borom dana yarfahi dana yëkkati moo koy yëkkati mu ni allahu yàlla kon foofu yàllaa jëf-jëf ji ndax mooy siise bi ñum yëkkati mu allazina amanu gaa gëm la yëkkati minkum ci biir gaa yi gëmul ñi gëm ñoo féete kaw daraja ñi gëmut waaye yàllaa leen yëkkati nag du seen effort du seen jëf kon deuxième daraja ji daraje coobare la daane ca biir ña gëm it yàlla yëkkatiwaat na yeneen gaa yi ñooña ñana ma ne wëlla sii na mooy gaa ña nga xam ne ootul xilma ñoom la may xam-xam gisoo uutoo joxees na leen alxilma ma xam kon xam-xam bi du jàng xam-xam bu nuy kenn gënu ci sa morom xam bi yàlla sotti ko ko soob booba la ni rawantee di ca gën ndax kum narul nga gën du la ko roof moo tax foofu dañuy ak gaa yi nga xam ni joxees na leen ab xam-xam ci sun ci sunu ci sun bopp kon jànguwuñ ko yàlla leen ko jox uutoo mooy iiti aata uutu mooy am da ngi dégg darajaatin foofu daraja yi fu ko fu ñu ko yëkkatee man na saaw ci coobareem wallaahu bimaa ta'maluuna noonu la ñëwee ci alxuraan fu baree baree bari yaa ngi jàng ci suuratu taax suñu borom di wax innahu man yaati minkum innahu man yaati muminan qad amila saalihaat waaye fa ulaa'ika lahumu darajaatul hulaa foofu da ngay gisaat li ma la wax kon boo ko doon indi ci alxuraan noonu la ca baree foo xam ni sunu boroom dafay leeral daraja yi nga xam ni maanaam du jëf a koy maye coobaree ba koy maye lii nag moo wane ni na nit ñi def ndànk léeg-léeg nga wax ni am naa lool gis nañ ci lislaam ku daj lu ne doon ko wut te mu mel ni da koo tëwoon nga dégg kon la eh yow da ngay fontu ah. yow ñeme ngaa wax am nga lii da ngaa ñoom jiw ak ñoom jiw ak ñoom jiw nga ne ax a ni leen yàlla waxe ñoo ñooñu nga xam ne loolu lañ daj ngir sàkku lii te yàlla waxul fenn am nañ ko yow defoo dara nga bëgg a wax ne am naa ko la koy indil problème boobu ba mu posé boobu question mooy dadul xàmmee darajee jëf ak darajee coobare da ko dul xàmmee looloo waral Serigne Saliou li mu jàllar bee jamono mooy darajee coobare xam nga ngërëmul yàlla lu ne gaa yi dajoon nañ ko ci jëf ko bëgg ko am alxuraan di ko nittali lil fuqaraa al muhaajiriin allazina uxrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwanan wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaaika humu saadiqun te la tàmbalee ko sahaaba ya yàlla di wax lan doon daj ci bàyyi seen i soxna ak seen i alal di jaayante waaye ba ci ahlu tasawuf ña dëkkoon ci àll ba di dunde ay xob dëddu àddina loolu ñu def ko ñoo ñëpp di sàkku ngërëm waaye xam nga lu tax ndekete ngërëm bokkul ci darajay jëf darajay coobare la yàllaa ko joxe coobareem comme yàlla tàgguwul xam nga yàlla bu ni woon eh kaay leen ma defa leen séminaire ñëpp ñëw mu ni yii mooy daraja yi jëf di maye ñu noté yii mooy daraja yi jëf dul maye ñu noté bu boobaa doo jaawale di sàkku daraja ji jëf dul maye doo ko jaawale di ko sàkkoo ci jëf xam nga doo ko def mais yàlla buur la daa defut si maye tàgguwul kenn daa jaxase yëpp ba pare am te yu daraja yu jëf dul maye am ci yoo xam ne jëf a koy maye te léeralu ko boo ko defee nag yow loo bëgg da ngay wut rek nekkate ngërëm daa bokk ci yi jëf dul maye coobare yàlla rek a koy maye moo tax ñu ko doon wute ci jëf yëpp ak façon buñ ko mënoon a wute loola mënu leen ko war a may bi leen ko yàlla may ci coobareem la jéggi may leen ko muy Hudaybiya looloo waral bi Serigne Saliou ñëwee di yàlla eh ndax loolu yàllaa ko mën naa te dinaa ci dikk bu ko defee daan ne sëñ becc ku jëmbali ci yow am ngërëmul yàlla ki jàng taarix yee gis gars yi lan lan laj ci loola kenn a confirmer ne am naa ko ñu dul waa Hudaybiya bu gisee ñun ñi nga xam ne da ngay jógee sa kër sañse lekk li la sol li la neex ànd ak sab nga dugg ci oto wàcc ndànk doo ci kat nag yaa ngi dégg jëmbalu ko seen becc léegi daal di dem danaan gaa yi dañuy font nii damaa defee ni xamul ngërëm li ñuy wax fekk benn bee waaye du dara ju ñuy jëf narfahu darajaatin man na saa àjjana du kenn du ko jëf di yàllaa koy maye ci coobareem ñiy dem àjjana féete kaw ñëfa dul dem waxuma ñee dëkk ak yàlla ñay dëkk ak yàlla féete kaw ñay dem àjjana waaye ñay dem àjjana féete kaw ñay dem sawara wa assemble yamini ma assemble yamini في سدر مخدود وطله مندود ويوا صاب سمالي ما صاب سمالي في سموم وهميم وسلم يعموم ويوا ما إن كان من المخربين نك فروه وريحان وجنة النعيم بكنو وي تشوبر لا بوب دارين تشوبر لا مودا بروم تشوبر كي نيو ديف تشوبر كي نكو مسو ديف مودا سيرين سالو نيمو جالار بي جامانو موي كي دارا جي تشوبر يي ليغا خامني داكوي ديف سي تشوبر تا لول نك رسول الله صلى الله عليه وسلم تيلون نانو جانغال ني daraja yi jëf di maye moom kenn du ci nag gaayam yii di saxaaba yi ak yónnante yi waaye daraja yi nga xam ne yàllaa ko joxe ci coobareem mën na jaa jox ay gaay yu dikkagul lu féete kaw fuuf ñim fi jot a jox donte nag bu la joxoon daraja ju féete kaw yónnante it doo doonub mën na laa jox daraja ju féete kaw fuuf yooyu saxaaba ya waaye doo doonub saxaaba ndax jëmmi saxaaba jëf la mooy ànd ak yónnante bi ndax daraja jooju jëfaleen ko may moo tax te yow mënatoo jëf ba doon saxaab yonent bi xam nga ci ci ci wàllu googa kon darajee jëf jooja rawee nan la ko waaye darajee coobare man nga leen romb ci maqaama ba doo doon seen morom rasulullahi nag moo ko indi loolu addis nan jàng mu watta mu watta bu bu imam malik imam malik radiyallahu anhu moo bind mu watta mu watta ci lislaam koo xamul amul mu watta moomu imam malik da caa nettali ay addis yu wér te imam malik addis bu mu nettali bul ca am werante ndax bari na yu mu bàyyi addis yu lënt tax mu bàyyi ko te am na sax ñu wéral yooyu addis moom nee na comme lënt na rek génne na ko ca ngiram ma noonu la ma noonu la ragal yàlla noonu la maandoo mu mari imam malik moom nett la ci moo tax hadis bi yonent bi wax bu wane ni naa am ci ji jamono dara ju féete kaw foofi ndoole yaxewoon yépp nekk te yooye ma doon junj nag yonent bi dane lu mën a ne la sëñ Saalu daa ñëw ko far loolu nag mooy wuute gi yonent bi naa ne sëñ ñoo def ko lu yonent bi wax daa daa dem siyaare ji Baqiya bi mu duggee Baqiya daal di jëkki-jëkki daan ni waddittu law laqiitu ixwaan yi ay waay ak a neexoon ak a neexoon ma gis sama mbokk ya bëggoon naa gis sama mbokk ya sama ko ne ko alay sa ixwaanaka kon ñun duñ say mbokk mun leen déedéet yéen samay saxaaba ngeen sama mbokk ya xawmun yaxtuuna min baadi amanu bii walam yaraw nii ñoom ay nit lañ yuy ñëw ki sama ginnaaw ginnaaw ba ma làqee sama jëmm jii ngeen xam dañ may gëm lool te dañ ma gis daana ko gis nga yooyu nit kenn ci ñoom rek yàlla dana ko jox darajay juróom-ñaar fukk ci yéen Seydina Omar bun Xataab mii moo ne ko ah xanaa xanaa juróom-ñaar fukki daraja ci ngeen jamonanteel boobu mu ne ko déere yéen laa wax yéen saxaaba yii nga xam ne yéen a rëy ba seen fuuritu fas moo ëpp doole junni wàll yi gën a mat waa jamono jamay wax kenn ca ñoom buñ leen peesee juróom-ñaar fukki yooyu mooy soixante fois di leen jël di peese ak seeni maqaama ba mu def 70 fois ci ci wàllu poids bu ñu ko tegee ci balance kenn ca ñooña wax ko rasulullah ko wax Seydina ma ne ko ah wax lu waral loolu mu ne ko ndax antum tajiduuna alal xaq waxum laa yajiduuna alal xaq aw kama xaal rasulullah salaa salaam daan na ko ndax yéen di ngeen maa gis ma leen di dimbali ci dëgg ba ngeen mën a ma gëmee nii ñoom nag duñ gis sama jëm ji te dañuy gëm gëm goog day féete kaw gëm gu mu sa xew moo taxit ci wàllu daraja léegi nag foofu addis bi lu yonente bi wax moy du dara jëy jëf dara jëy coobare la loolu nag Sëriñ Tuubaa ko wone na xam ngeen ni mag ñi biñ toogee fi di waxtane gaa yen yan naw ba defee ñu leen man seigne bi da fëgg permis ne anakanti yeen mo bëgg ma wàññi daraja ba mu tolloog ñooña kon lo ci dig yeena man ñoña bi ni jébbalu seigne touba dañ ku fi jébbalu daraja ñaari sahaba nga yor waye Serigne sallu bimu defale defalee yalla man ko nu ci ñu xoos ci biir yalla motax attention nan ko ñemee wax fi nu Serigne Saliou yóbbu ki sunu ngërëm li mës sa xew ci jenn jamono te loolu nag ko weddi weddi nga waxi rasulullah weddi nga alxuraan yonente bi neewoon na ndax fi mu toll nii fi wax ñu ne la wax ëpp na moom kat day wut ñu ëpp doole gaay yi ko yàlla ma leen tollale woon noona moo déclaré woon ne dinaa fi indi gaay waxuma dana leen man ñaari yoon 70 fois par kenn kenn ku ne dana man ñooña 70 fois gaaña rasulullah ko wax man loolu nag ko feeñal ci jamono jii ba kentaakoon xewee no am ngërëm suubuwaat ci yoonu loolu mooy nar fa ma dara jàcc man na saa ndax wasila borom ngërëm jot am boobu mooy deuxième bi yaa ngi dégg mën naa ci indi ay yeneen yu leer yu baree bare moo tax boo demee sax ci albidaaya wa nihaaya déggoon nga eh, Seydina Isa bi mu laaj mbirum Tuubaa tegtal leen ko doon jox nee nañ ko gaayee gaayooya daraje yonent lañuy doxee ci kaw suuf nga xam ne ko waxumal ay saaba yooyu waaye daraje yonent te dara daraje ay yonent mooy lan Serigne Saliou nag moo ko dëppaleeg 17 avril moo tax 17 avril moo jàllar bi jamono yaa ngi dégg yooyu nag alxuraan la addis la ku ko weddi waxi yàlla nga weddi ku ko weddi waxi rasulullah nga weddi ku ko weddi waxi Serigne Touba nga weddi kon loolu l'islam du wóor la yaa ngi dégg muy kon narfa'u darajaatin man nashaa kon foofu daraja ci wàllu coobare la yàllaa ko jox ko ko soob bokkut ak daraja ci wàllu jëf moo tax léeg-léeg nga gis nuy wax lu nu Serigne Saliou defal loo xam ne boo ragalee gars yi nga xam ne ci ay téere lañ yam defe ni lu jëf mayewul wëri su ko am doo sant Serigne Saliou te da ngay juum dama ni la jëf di maye moo gën a néew foofu li yàllay maye ci coobareem li yàllay maye coobareem ku ko neex rek la koy maye moo tax Serigne Touba wane na ñaar na man li yàllay maye wàllu jëf jox na ma ci lu kenn mës am ndax li ma def kenn mënu ko te kenn duutu ko def daane nag coow li jurul baril ku ni mën naa def rek jéemal man sàkk fii saalika fal yu jarri bi man waman yor yu jarribu baa bi taqarru bi moo tax itam yàlla jox na ma ci daraja lool li jëf di maye jenn daraja mësu ko am darajati tahlu walaysa tunqafit waman naha min alwara xafdi qufit wa hindakat xal nii jalil alxadri duniya wa uxra wa tunawil badri maa ëpp daraja fa yàlla ci daraja yi jëf di maye tey ak ëllëg gënu jënd dama fa moromam kenn ndax la ma def kenn mënu ko te kenn dudu ko man te ko ko tóllanti faatu léegi nu indiwaat la kon bu fekkee ci wàllu jëf la Sëñ Tuubaa man ci wàllu daraja yooyu muy benn bu njëkk bi daraja yàlla joxe ci coobareem it Sëñ Tuubaa dañ ni wa uusikum bi an tahabbu man ahabahullah ndax fa inna man ahabahullah ya ma shaa maa ngi di wax ni ku ngeen gis yalla soppal ko bopam ñu ne ko ha mu ne ngeen ko sopp gaaw ñu ne ko lutax tax mu ne ndax kookee yalla da koy def jumtukaay bi mi jëfandikoo coobareem diko rang ràng yu ko neex ndeke bobu bopam lay wax ñepp ne akon ah, nañu wëri ñi yalla sopp mu ne kay ma dimbali len ñu ñew mu ni mbooleem ni yalla sopp ñu ne ko ah, mu ni ahmadu mi la ci gëna ñu ne ko aha di mu ne kataballahu tabaraka wa taala li ma len di wax nak da ngeen di dem ca lawhul mahfuz fa nga xam ne fa bind dudu ko far lawhul mahfuz juróom-ñaari wet la waaye wet ga ca kaw lu fa yàlla bind dudu ko far yamhu llaahu maa yasaa wa yusabbitu juróom benn wet yi lu mu ca bind mën na far waaye bëri lu ñu fa bind du ko far muy dem leen fa nga xam ne lu mu fa bind du fa far da ngeen xam ni ka yàlla gën a sopp mooy man daa bëgg wax ne darajey coobare yi maa ci man ñu ne ko bindal mu ne kataba llaahu tabaraka wa taala anna kaatiba haasihi lhurufi saara ahabba ila llaahi jami min jamihi lmalaikati alayhim salaamu lbaaxi lkarimi mukarimi waaye wasaara ahabu ila jamihi lanbiyaai walmursalina alayhim salaatu wasalaamu lbaaxi waaye wasaara ahabu ila jamihi alawliyaai walmuminina almuslimina almuhsinina maa yafuuxu sannahum min arridwaani ridwani ne wallahu ala ma naqul wakil aw kama xaala cheikhul xadim boo demee ca majmuhatul mubaraka page 144 lima ma wax ma nga fa nañ ko seeti sëñ Tuubaa dane yàlla bind na ci xalimaam nga ahmadu mi la gëna sopp ci mbolam yonentam yépp ahmadoo ko ko gënal mbolam la mursaliina yépp ahmadu mi di waxe yéen moko ko gënal waye mbolam malakam yépp man la ci gëna sopp man la gëna sopp ci malakam yi man la gëna sopp ci kuy tuddu waliyu man la gëna sopp ci ku kuy moominiina ak kuy muslimin ak kuy muslimina mako gënal ñépp mo taxit takal na ma ci dara jaay yoy ken musko am ana la nii maalam yunihu xayri man qadalo man qadani lahu bi usni xayri ñu ko lu tax mu ne wahabalil akramu ma asaawu te li am na ko yëpp xalumaa yi saw foofa dafay jëfe cooba coobareem lu ko neex def maa ko neex nag ya ko neexoon yëpp ràng na ma kon deuxième bi raw na waa léegi nag ma ñëw ci troisième bi kon daraje coobare rek laa tolloon mooy daraje yi coobaree joxe bu dee yi coobaree joxe foofu la yi coobaree joxe ci leenu sëriñ saaliwu defale lim nu defal te mës am ci genn jamono leenu làq ci mbirum yàlla am ko ci jamono ji ñun cantaakoon yi sëriñ saaliwu defal nu dawaamu sukkuri defal na mbaa yàlla ci ku dëggal defal na suñu bëccëg bu ne di leetul xadiri defal nu ngërëmul yàlla def nu ñu doon cantaakoon defal nu defal nu defal nu defal nu ba kenn mënu ko lim yooyee suñu jëf may nu ko yàlla ko joxe ci coobareem noo ko soob jox na nu ko kon dañ koy sant waaw boobu mooy deuxième bi léegi ma ñëw ci troisième bi nag foofu nag lay ñëwee ci kenn ëppatu la dara jafe yàlla seen bees bi nag ñaari njëkk yëpp sëñ Saliou seet dina ko ci ni sëñ Tuubaa waxee bu dee ci wàllu daraja jëf sëñ Saliou da koo jëfloo ci boppam nu mu jëfee te kenn musu faa jëfee moom rek lañ xam ci ku jël génn këram ak njabootam di dund ñaari soxnaam yaayam ak njabootam sëñ Saaliw ne ko ginnaaw tubaa dëkk yi ginnaaw tubaa cee sama ci gënal ba mu ko laajee lu tax mu gënal ko ko mu wax ko ko day sëlëblewu yoon te nekkee ñi ci réewum senegal foo xam ne fu waaye jóge bëgg a dem Dakaaru man ngaa dem te saw yoon du yàqu te capital bi day Dakaaru yitte yi ëpp fa mu ne ko Mbàkke jox naa la sama kër gi àddiya fa sensé gis ku jëfe foofu moo ci wàllu jëf la mu def kenn mësu ko def moo tax nee na ko sa yoon woo di liggéey Sëriñ Tuubaa kenn fekku la ca xam nga liggéey Sëriñ Tuubaa jëf la xeeti jëf yépp moo jëfee te kaw Sëriñ Saliou ne ko yoon woowee di liggéey Sëriñ Tuubaa néew ko yaa ca jiitu néew ko jàmbaar nga ca kenn fekku la ca kon bu dee ci moo man Sëriñ Saliou ko confirmé nag sopp nga ma ba picc yi naaw sax xam nan ko yaa ngi dégg yow daal dootoo ku ñuy jox ndigal weesu nga fu ñu lay joxe ndigal loo defati ndigal la waaw extra extra yu baree baree bare yoo xam ne ci wàllu dara jëf liñ ko ci jox mat na sëkk ci dara jay coobare nag moom eh, li ko gis Serigne Saliou defal àdduna gis na ko seen bi atuma ne ko màkki ku la gis de xam damaa jëna lu ko moo màkki lu ma la defal ba tax defal ma loolu bu ko Serigne Touba dalaa nangule nu mës sa nangu la kenn foofu dara jay coobare la mooy da koy nangu di ko kii daal mooy sama bunt ku jaar ci moom da nga ko am seen bi atuma ne ko màkki mu boo ku may jox bu jawaroon a am benn su ko jaaree ci am fukk waaye soo teewee békke bu waroon am benn am fukk loolu coobare la sëñ Saaliwu sëñ Béthio ko neex coobareem la jëfandikoo ci moom moo tax ku ci am lu la neexul sëriñ Saaliwu nga weddi booba weddi woo ko sëriñ Saaliwu nga weddi defut boppam ni mel defutul boppam lim yor waxul boppam leen koy wax sëriñ Saaliwu woo ko def wax ko feeñal ko ñun ñëpp dañ ciy sant rek kooku jëfi coobare la jëfi coobare moom ni Serigne Saliou jëfandikoo coobareem ki seen Béthio àdduna sépp maasa nañ xam ne bu doon ci wàllu dara day coobare moom mën ñëpp ndax seigne Saliou ko waxat bopam def ko lima def ci yow ku dul yàlla sama borom xamuko def ga nak du def adiya may wuko di liko seigne sëñ defal lol adiya may wuko di def yu bari may wuko di motax seigne suñ di ayé ku nan seigne Saliou dama fay sa def di nga def de fay na lako da koy tere ndax li tax waxtaan wu mel nii ya tax dafa am daraja yo xamni kenn du ko def ndax def natuko ko yàlla koy joxe mo soob sëriñ Saliou def nako waaye ñaar yi yëpp nag li muy baax baax garawul ma ñëw ci ñetteelu nag daraja ji ñetteelu daraja ji nag jëf mayewu ko coobare joxiwu ko mit def du ko am alxuraan moo ko andi yàlla rek ko jagoo boobu nag mooy baatub xadduru xadduru sax la koy jëfandikoo dafa soppi tur bi du ko tuddee darajatu waaye boo ko doon firi ci olof darajatu li muy firi ak xadduru li muy firi benn la mooy mooy tolluwaay maqaama rëyaay ndax wolof daa xam waaye suñu borom andi na ko ci alxuraan ñetti yoon waaye ñetti yoon yi tudd ci mbindeef boppam rek a ko jagoo diglu leen bu baax na sama toll bi mu njëkk a ñëw mooy suut lan xam wa maa qadaru laa xaqa qadrihi isqaalu maa ansala allahu ala basarin min cheyin xul man nazala alkitaaba allasi jaa bihi muusa wa nuuran wa hudan linnaasi tajhaluunahu xaratiisa wa tubduunaha wa tuxfuuna kasiiran wa xulimtum maa lam taalamu antum wala aabaaukum qul illahu sumasarahum fi qawlihim yalhabuun lu yàlla wax yéen mbindeef yépp ñu ne ko waaw mu ni lu ngeen ma jéem a jéem a màggal ak lu ngeen ci def def effort taxul ngeen jot sama dayo ñu ko lu tax mu ni sama dayoo dafa luumaateeg yéen maanaam jëfi yàlla daa luumaateeg jëfi mbindeef mooy dama leen ëpp ndax maa leen sakk kon sama dayoo seenu jaamu du ko dab seenu màggal du ko daf foofu dara jël suñu borom daane looloo tax kenn ku ne ci yéen ni ma ko sàkkee tax ma mën a arbité ko ëpp daraja ko ëppul daraja ndax man maay joxe daraja yi kenn ku nekk li nga ci am maa la ko jox bu dee lu nuy jëf li nga xam ne moom nga am ci coobare maa la ko jox kon man maay kii séddale duma ku nuy sédd foofu yaa ngi tàmbali dégg Sëñ Saliou moom mi xam ko ne la nga ci am banaa ko kenn ëpp daraja fa yàlla waaye diglul yaa dégg muy benn boobu foofu yàlla lu mu tudd ma maqaamaam foofu nag mbindeef du ko jote mukk du coobare du la yàlla du ko soob mukk ba mu joxe yàlla ndax loolu daa jomb daa jomb ñi naan yàlla lu ne mën na ko comme neex def ko yàlla loolu waxi mustahil la waxi jahil la yàlla yàllaam ji mustahil la kenn di ko am te foofu yàllaam ji lay wax ñëwaat na it ci biir alxuraan demal ci suutu xaj ji bi muy tëj wa ma qadarullah xaqa qadrihi inna allaha la qawiyun xasiis kenn ci yéen mbindeef yépp bu ngeen dajaloo woon yéen mbindeef yépp nit jinne malaaka muuseeg kane yi bant yeeg garab yi yéen ñëpp ngeen jàppalante ci lan jéem a dab doyob yàlla ci màggal ko yéen ñëpp lottu ngeen ci seen ko lu tax sama dayo min def rott na ci àgg ca inna allaha man yàlla la qawiyun maay borom kàttan gi hasiisun maay borom sañ-sañ ñëwaat na it ki suuratu xaafir wala sumur booy baajo dugg xaafir wa maa qadarullaa xaqa qadrihi is qaalu maa ansalallahu ala basar mooy lan xam waaye wa maa qadarullaa xaqa qadrihi wal ardu jamihan qablatuhu yowma alqiyama wa samaawaatu matwiyaatun bi yaminihi subhanahu wa taala xama yusrikun yéen min def yëpp ba tey encore munu leen a dab mukk li ma doon moo taxit man yàlla ki sama kàttan laa ngëbe suuf sépp ak li ci biiram yow man a maay régler mbir ya kenn du man du ma kenn foofu màggam gi lay wax moom suñu borom subhanahu wa taala xama yusrikun daa ngi dégg moo tax mu ni kenn mënu maa xam ku dul sama bopp laa yarifullaha illallah xam-xamul doomu aadama lottu na ci yàlla da ciy xam nag waaye du xam mukk lu tax du koo moo tax kenn mënumaa ragal dëgg-dëgg ragal kuru sans bopp moo tax xàqatu xiiti yi Sëñ Saaliw nee na ku ci lott nga yem ci fa taqula masratu ndax loolu kenn mënu ragal yàlla ca dëgg-dëgg ca ndax da day mel ni kon boobaa da ngay àgg ca man koo dab moo tax ab jaam mënu koo sant ba dab cant ga ndax yàlla da ko tiim bu ko defee nag léegi nag dara jooju nga xam mbindeef ma ñëw nag sëñ Tuubaa sëriñ Saaliw li tax ngay xam ni li mu wax sëñ Béthio kenn mësu koo dégg wax ji yi na waaye Serigne Saliou woo ko wax kenn mësta digg wax ju ni mel ku bëgg ñu waxal la wax ju ni mel danga koy wax te kenn mënu ko wax kenn sañu ko Serigne Saliou woo ko def moo ko wax kon faaw waxees ko nag yaa ngi dégg xoolal dara da yàlla jooju fi la waxanteeg sëriñ bi diglul nag ma wax la ko ma leeral la ko Serigne Touba bi mu leeralee darajee jëf ñim ci ma ne ñëpp ak darajee coobare nga xam ne maa soob yàlla tey ëllëg lim ci ma ne ñëpp daf ni nag weesu naa ñaari yii yàlla faf na ma jël dugal ma ci biir darajay boppam ja nga xam ne min def du ko jot loolu loolu mooy lan tafdilu sil xudrati wal iraada faddala nii wa huwa li araada léegi sax waxoon naa leen ni maa gën gaa yi laqad sabaxtu falaa yabqa xalaa ahadin ilaa xalaa ahadin astaahu mawlaahu maa jiitu gaa ñépp jiitu goo xam ni kenn du ko werante lu dul ko nar a texee di ndax waxtu bihi taqaddumi bila asan aw alami sabbat rabbi qidami bil mustafa al muqaddami nga xam ni loolu fu ne bind na ko fa daal ne eh, loolu sax ab kursu la foo déggee maa raw gaa yéen raw ci kursu bi lañ bokk kursu moom nee naa la ki jël pee ci kursu bi la ki jël ndaara ci kursu bi la rawantee fa am waaye départ ñoo départ ndoo arrivé leen taqale sëñ Tuubaa daa ne yooyu sax rawante la waaye dama leen di yëgal benn affaire ñu ne ah mën ne daraja yàlla di nga xam ni mbindeef du ko jot yàlla tàbbal na ma ca biir loola moo tax gënante wu ma ak yéen maa ngi ca gënug yàlla ga loolu kenn du ca dem daf lay wone ni may kooku ben ñewat ne taqdimu khaliqil wara sil wahda qaddamani wal wala wahda jiitante wuma ak yéen même bu sooboon yalla man lay def ma jitu leen waaye kon boba day mel lu no defal man ca bir jitu kadul jiitlante kenn ta kenn mënta ge dara jam bi moy yalla yaa ngi dégg kon xam nga lek kooku moy serigne Saliou way sëriñ tax xam nga mu meena xam ku ne daraja di nga am nak lu tax ku ne la nga am ci mo la ko jox ben waye lolo sax reuy xam nga fu bi ne ki muy waxal dane ko yaay man may yow jàpp ci yow mooy dëgg dëgg jàpp ci man képp ku ko def dana ma noppal tey jii ak ëllëg gënu jëm te dana def lu ma neex xam nga Serigne Saliou ko wax kon xam nga Serigne Béthio Serigne Saliou léegi du lu ma wax la nag gis nga daraja ji Serigne Saliou séen ba di ko joxoñ ba mel ne ku metti lu yenn yi ba naan ko xamoo sa bopp daraja jooju mooy njobbaxtalug daraja yàlla naa naa la ko leeralal nag njobbaxtalug daraja ji yàlla naan min def jotu ko léegi nag baal ma leeral la loolu sëñ Tuubaa moo wax si mujjoo paxa diglu nag li may wax xaarifoona billahi jàngal isaadul muridina fi mahrifati kalaamil xaarifina xaarif yi danni wa li kulli xaqin xaqiqatun réalité boo gis dëgg goo gis am na dëgg-dëgg wa li kulli xaqin xaqin rek mooy benn réalité xaqiqatun mooy dëgg-dëgg xaw ma ni ko wax na ki tubaab loolu yaa ngi dégg wala vérité ak réalité xam naa ngeen jéggal ma baali rek yaa ngi dégg léegi mu wax loolu wali kulli xaqin xaqiqatun daan ni wa anna muhammadan xaqun waaye wa huwa li wa huwa xaqiqatun daal di jëm ni muhammad rasulillah rek xaqun vérité la dëgg la waaye dëgg googu nag am na xaqiqatun mooy dëgg-dëgg ja daan ne nag xaqun ji ku gëm yàlla da nga ko gis da nga ko xam dëgg-dëgg rasulillah yi nag nee na kenn du ma lu dul ahlul mukaasafa mooy ne yàlla lay baaxee di la wuññil ay kiiraay di leen ca musal te kenn du ca yegg kat yaa ngi dégg de Muhammad moomu nag dëgg-dëggam ji di xaqiqatul muhammadiya loola it am na xaqiqatun mooy dëgg-dëgg ja mooy ahmadiya kon xam nga déglu li ma lay wax nag Serigne Touba nag moo ni sin mu jow paxa nettali woon naa leen bayit ya keroog bi mu koy jàngal naan ko mu ahmadu na ngeen sant naan na ngeen xam ne tudd gin may tudd di leen tudd moo leen tax a gën ba naan ko sax foog naa bi faw xil Moustapha al mukarrami na nga xam ni xeet wi xanaa xam nga ni ñoo gën ci xeet yi jiitu woon mu ne ko waa waaw mu ne ko li leen tax a gën mooy rasulullah seen kilifa gën ci yónnante yi jiitu woon rek mu ne ko waaw jërëjëf Mbàkke mu ne ko te la ma la wax kat yomb naa xam daane ko fasaahidu lisaa ahlul kahfi daane ko gaa yi kahfi seen xaj ba moo moo moo moo seere li ma wax ndax xajub asaabul kahfi bàyyiwul lu xaj yi bàyyi li xaj yi def lay def te fu ñu tuddee ashaabul kahfi bu na xaj baa leen ñeenteel bu nee na xaj baa leen juróomeel bu na xaj baa leen juróom benneel na xaj baa leen juróom ñaareel bu kalbuhum wa yaquluuna xamsatun kalbuhum rajman bil xaybi wa yaquluuna sab'atun kalbuhum qul rabbi a'lamu bi hiddatihim ya'lamuhum illa qalil daa ne ko moo tax itam xajub ashaabul kahfi fa ashaabul kahfi jëm yóbbale ko daa ne ko tudd gën koy daanaka lolo tax bu ne ñun xeetu yonente bi ñoo gën ci xeet yi rasulullah mi ni tudd duñu ko tudd na dañaan xeetu yonente bi kon dañuy dañuy dañuy tudd tuddaale yonente bi ya ngi dégg sëñ Tuubaa di ko leeral loolu daan ne ko gën rasul rasulullah yi moom mu ne ko waaw mbacke mu ne ko ba xam nga ni nun ñoy ñobaxtalu gënam sëñ Tuubaa neena na rasulullah gën ñep sëñ Tuubaa wax nako way nako bidayatul mahi nihayatul khiyar faddalahu halal wa rasul ikhtiyar way neena ko nanga nga xam ne rasulullah gën ñëpp mu ne ko waaw waaw ndax mooy principe bu yàlla bi njëkk a feeñ ci manifestation bi ñuy wax nuuru muhammadiya ci wàllu li ñëw àddina mu ne ko rasulullah gën ñëpp mu ne ko waaw mbakke mu ne ko nanga nga xam ne nag gën ko rasulullah ga ñun ñi ñoo njobbaxtal la maanaam ñun ñoo njobbaxtalu gënam ga ndax mooy xaqiqatul ahmadiya moo tax te foofu la njobbaxtalu li li rasulullah doon biir bi biti foofu la yem Sëñ Tuubaa ne ko nun ñoo njobbaxtalu gënam ga mu ne ko jërëjëf mbakke mu ne ko ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ne ko na ngeen seere ni yéen ñi ni tudd di ma tudd yéenee njobbaxtalu xeet wi kon xeet xeet wee gën mooy xeetu Muhammad waaye ñi ni tudd di tudd Sëñ Tuubaa ni Sëñ Tuubaa doole njobbaxtalu gënub Muhammad ñun ni lan doole njobbaxtalu gënu xeet wi Sëñ Tuubaa ko wax si mujj la si mujj jobbaxta am mbind la yaa ngi de muy nee na moom mi njobbaxtalu gënu Rasulullah yi gis nga daraja yi ni mu yokkoo nag da ngay topp li ma del siifur li ma la wax lépp yàlla Sëñ Tuubaa moomu nee moom mi njobbaxtalu gënu Muhammad moom ak dënam njobbaxtal lay sëñ Saaliw wahab liyal hilma as-sahiha wal hamal الصالح الذي يكمل الأمل لنقادة الأجور والمصالح بالتي والجسب إني صالح باللب نيوي با دارا دساتو فا تي لا دوغو تود صالح كون موم لم دون لا تاي نجاب بختال لي موتالي لي فينغول موي صالح كون خمغا يفي يوكات نا غيس nga dara jege nam gëna soré motax serigne saliw ni ko serigne touba joxat ni serigne touba joxane bopam ci serigne saliw du bokk ak ni muy joxeñe boppam ci boppam ndax fa ci fa ci sëñ Saliou dafaa yokk ak feeñ yokk fa doole yokk fa manifestation moo tax foofu mooy mooy gën a rëy ci moom donte lépp moom amul tànk ginnaaw tayam dina di gàccal dimb waaye foofaay tudd tayam bu boobaa kon foofu foofa la njabootal dara day yem waaye sëñ Saliou moomee nag moo ne sëñ Béthio yow yaay dëgg dëgg sama kon moom kay la tax muy war maal sëñ Béthio ba bu ñëwee mu lal tapis rouge ñi ñi foor ñëpp te tedd toog ca suuf mu ne ko toogal fee du nangu kenn fekk ko fa bu dee defar ay yëf sax day defar ga defar kafe jël war warga ba féetalal ko jël kafe ga jox ñeneen ña léeg-léeg am ku taamu warga dem ca sin becc mu ne eh mu yónnee nee leen ko dafa jug na dem ca moroomam ya loolu de pour moom loolu sëñ Saliou loolu daw fiit ak yooyu de boppam lay warmaal li muy war warmaal fee dara jëy boppam jana jug kawe ja yaa ngi dégg loolu lay war warmaal nga xam ne li ko tax sax lay nangu mu xaw koo jege ana Amadou mune ko maangi dem ko demal fekki sama ja ngir lan fofu sax jegante amna ki koy tuddu diko ko comme ni walu tuddu yoy si mujj paxa doon wax ak seigne touba fofu bo xamut da nga nan mo seigne Saaliw xana da daa wayefal ñi wal de seigne Saaliw du wayefal mbindeef koku ñepp la dal an na maa ñëpp la wax te takale ko kenn waye lamay wal mal ki seigne Béthio bo comprendre da am problème bopam lay mal dara jam lay sam mom lay fonku lolo tax leg leg mu ne ko yaa ma xam sa bop baxtaluk lim doon motax moo moo tax muy muy wax yooyu yaa ngi dégg léeg-léeg mu ñëw toog ci wetam fekk ko mu kaalawu muy wax ba yàgg mu dindee kaala ga ca ca loosam ba daal ko koy gàcc moom sëñ beccu musunoo dégg ku sëñ Saaliw dindee kaala ci ci loosam gàcc ko ko man de dégguma ko mu def ko sëñ beccu ci kanam addina yaa ngi dégg sol yére calaw li ba bu ñëwee toog solu calaw li bu nuy nuru nuy wax ba yàgg sëriñ nañ na ñokkee jug summi bi mu soloon ñëw xëpp ko ko yooyu sëriñ wu jëmmam lay war maal dara jaay boppam ji ji nga xam ne mooy njobbaxtal lim doon tam feenal ko ci jamaalam jóge di sin bëgg loolu lay war naa loolu lay fonk moo tax boo xamul da ngay am problème fekk déedéet da nga naan moo sin beccu mi waaye àddina teew kay koo xam ne doomam moo moo moo xëm ba defe ni faatu na ci loxoom tubaa gépp di siyaare Serigne Saliou mu yanu doom ja ñëw yuuxu ànd ak jëkkër ja yàlla mën a leen gan wuy Serigne Saliou sama doom ja faatu na boo ci dimbiliwul mu faatu àddina sépp nga xam ne keroog kuy tudd kilifa teew yal na ko yaakaar ki Sëñ Saaliw Sëñ Saaliw joxoñ ko ne ko yët ko Sëñ Béthio mais mu ñaanal ko ñëpp ne ah Sëñ Béthio nag waaye gis nga mu ne ko ah, moo koy ñaanal de mu daal di yanu moom it yët Sëñ Béthio amul werante Sëñ Béthio di wax barkeb Sëñ Saaliw am na tëf mu wér ge sanse yooyu boo xamut Sëriñ Saaliw maqaamam boppam ma lim doon lay wan àddina foofu di ko joxañ moo tax mu naan ko jàpp ci way dëgg dëgg jàpp ci man képp ku ko def dana ma noppal tey jii ak ëllëg gën a jëm te dana def lu ma neex nan ko defoo waxoo loo def maa ko def loo wax maa ko wax bakkan nekku ci àdduna nekku ci lépp Sëriñ Tuubaa moo tax bi mu nekku kenn ëppatu la daraja booba boppam lay wax wax moom mooy njox baxtaluk daraja te moom la feeñal dëgg dëggam ji moo tax loola day bëgg muy warma wu saasu ne di bëgg muy fegu saasu ne du bëgg mu yem dara ngir lan day mel ne loola bu wàccee moom moo wàcce moo tax jamono ji nekk mu di ko teg foo xam ne duñ gis mu teg fa lenn ba ci ni ni ñuy gisee sax muy doxeek moom danga naan du ko doxeek boppam loola nag la muy firi mooy lii bu ko defee kon dañuy xàmmee yooyu kon loola doon bind bi di xeeti ji baatu kenn ëppatu la daraja fa kon xeeti daraja yi nan la ko alxuraan indee ko kon bind baa nonu, noonu yàlla ko dégg te jariñoo ko sëriñ bee ko jaamu sëriñ Saliou na fi yàgg tànd wér